bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna kon ñépp jaari jahim tey jaaratullahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wóor ya daaxare dun dem jannatullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayim am jaaratullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarim ndegam tuuba li man baalaxaayi maam jaaratullahi maay Serigne Khadim Ndiaye nekk nag euh, président de Émergence pour tous mais aussi bokk ci benn euh, association bu ñuy wax APIA ma nekk euh, le père fondateur mais aussi vice-président et chargé de la diaspora mouvement la nag boo xam ne ak association boo xam ne seen objectif mooy fexe ba lii ñuy wax immigration clandestine ak li ñuy wax violence faite aux femmes et aussi les difficultés entre administratives entre les pays africains an mu ne dañuy paaxoo di def journée boo xam ne dañu ci dajale les sept pays de sous-région pour ñoom ñu mën a ñëw pour ñu waxtaanee lan lañ mën a fexe ba difficulté yooyu nga xam ne ñu ngi koy am ci Afrique ci wàllu ndaw ñi ak ci wàllu jigéen ñi pour mu mën a saafaro yàlla def nag mu gën a dajee ci ak bisu poroxaan bi te xam nga ne wax dëgg yàlla taalibe bu ne poroxaan ñëwee sa yitte moom duutu doon lu may fexe ba teew ci bis bi ba noppi. Euh, daan nañ fi ñëw yaa 30 ñu ñëw fi ren jii waaye wax dëgg yàlla li ñuy def mooy sant sëñ Muntaxa Mbàkke mu tedd mii te di ko ñaanal ndax wax dëgg yàlla bis bii ak jëmm ji ak jataay bii taar bii mu am wax dëgg yàlla mbégte la feexte la ci murit bu ne ku fi ñëwoon yaa 30 ñëw fi ren jii defe naa ne doo man lu may sant Serigne Touba bu baax a baax aussi xam ne Serigne Muntaxa wax dëgg yàlla duñu man lu may ñaanal ko ndax lii muy def ci liggéey Serigne Touba di ko def ci yoonu maam rawatina ci maam soxna Jaara Buso bi defe naa ne murid bu ne war na ko cee sant te ñaanal ko ci li nekk ci suñ kanam da mooy ah, ah, xam naa ne jiital ci li nga xam ne mooy émergence pour tous ndax wax dëgg yàlla kenn ku ne gis na ne difficulté yi nga xam ne am na ci Afrique mais am na ci particulièrement Sénégal kon defe naa ne Sénégal bu la yàlla dimbali ba nga am benn xam-xam baa nga am benn xalaat baa nga benn expérience nga andi ko fii ci Afrique pour yi mën cee trouver li nga xam ne mooy solution pour l'employabilité des femmes et des jeunes defe naa ne kooku devoir la ci bépp africain loolu mooy suñu projet numéro un buñ ca jogee nag daa daañu fexe ba nga xam ne lii nga xam ne mooy intégration sous-régionale doon aussi une réalité ci Afrique yëpp. di soññi chauffeur yi di soññ aussi ñi nga xam ne dañu bëgg a màggal si muy chauffeur yi transport yi muy chauffeur yi nga xam ne dañuy yor seen oto bopp bu ñu sonnee nañu toog noppalu te bu ñu doxee nañ bàyyi xel ci yoon wi dëgg yàlla dara dàqul lu mooy jóge sa kër. Euh, ñëw siyaare delluwaat ci ci jàmm ak temps bu mën di jël ak diir bu mën di jël ñëw ci jàmm dellu ci jàmm rek moo am solo kon nag nañ ko bàyyil xel te góor góorgóorlu te jëm a yaatal xol yi ba ñëpp yëpp ñëw ci jàmm siyaare delluwaat ci jàmm loolu daal mooy li nga xam ne xam naa moom la jiital ci wax ji bi ci topp mooy fexe ba nga xam ne képp koo xam ne ñëw nga it nga ànd maanaam ak li nga xam moo am solo ci dëkk bi mooy siyaare teg ko ci li nga xam ne moom la lislaam bëgg teg ko li ko Serigne Touba bëgg mooy maanaam def ko ci àll mu gën a sedd te def ko ci teggin akuk yar akuk jub ba delluwaat ci kër ci jàmm kenn bañ ca am lu la naqari ndax wax dëgg yàlla lu toll ne soxna maam jaara Buso ku fi ñëw di ko siyaare war nga fee war na yar boo xam ne ak teggin yoo xam ne kenn ku ne dana xam ne yow mi xam nga li tax euh, bis bi jóg xam nga lan mooy maam jaara di delloo sant yàlla bu baax di ñaanal suñ Muntaxa niñ ko waxee woon di fi nag comme niñ fa daan ñëwee at mu ne lu yàgg a yàgg te yitte juñ fa andi it yàlla saafara ko ndax wax dëgg yàlla maam jaara Buso mii kat kenn ku ne xam na ne ci lislaam am na ci taarix boo xam ne am nañ yaakaar ci ne ku fi ñëw boo fi ñaan na dara incha allah suñu borom dana ko saafara kon nag yàlla na nu yàlla dimbali ba mu saafara na ko tën muurloo loo chaque année c'est venir assister cette journée qui est une journée prière pour euh, notre grand-mère qui est Sokhna Mame Diarra Bousso. Comme vous euh, la semaine dernière, samedi, de jours, on était en Banjul pour célébrer la journée internationale pour la promotion de l'intégration africaine en Banjul. Mais comme on est des Mouris et des Talibés, notre objectif, quand cette journée euh, s'approche, c'est de venir ici célébrer les journées comme on a l'habitude de le faire. Mais fierté aussi pour Serigne Mountakha Mbacké. Vraiment, c'est que les gens qui sont l'habitude de venir ici il y a 30 ans, qui sont venus aujourd'hui, je pense que il serait une fierté de prier aussi pour Seigneur Muntaha, parce que la différence, il est tellement énorme qu'on ne peut pas de pas le dire, parce que vraiment, on était très, très, très euh, surpris quand on a vu cette euh, œuvre, qui est une œuvre vraiment très, très, très mais aussi vraiment très, très, très musclée par rapport à ce qu'on avait vu ici il y a 30 ans. Vraiment, merci à Seigneur Muntaha. Priez pour lui, que le Dieu vraiment le soit vraiment protégé pour qu'il vive longtemps et pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Donc, aussi, on a vraiment une habitude de dire, chaque fois qu'on a l'occasion d'assister à ces journées telles que celle-ci, c'est de dire les gens qui se rendent ici, en particulier ceux qui conduisent, qui font attention parce qu'il y a beaucoup de monde qui quitte chez eux. Mais je pense que l'important, c'est que quand on quitte chez eux, c'est d'y retourner sain et sauf. Donc, pour obtenir ça, c'est de prendre la responsabilité de sang et des autres, de conduire très très doucement, de faire attention. Et quand on est fatigué, on prend le pause. Parce que vraiment, l'importance pour qui compte, c'est de sortir celui et retenir celui sain et sauf. C'est ça le message que j'aimerais lancer. Le dernier mot, c'est de dire vraiment que euh, l'ensemble des talibés, ils sont fiertés pour Seigneur Mokhtar. L'ensemble des talibés prient pour Seigneur Mokhtar et personne aujourd'hui n'a doute que quand on a vu cette œuvre euh, il y a 30 ans et quand on le voit aujourd'hui, on peut qu'être fier et on peut que prier pour Seigneur Mokhtar. Donc, euh, euh, vivre ce qu'on appelle euh, vraiment euh, prier pour Seigneur Mokhtar, mais aussi faire sorte que nous, les Maurites, on est on conscience de ce que Mountakha Serigne Mountakha entend faire pour le euh, par exemple pour le euh, pour le mouridisme et aussi respecter et essayer d'être le plus proche possible ce que Serigne Touba a toujours œuvré, c'est-à-dire en religion, mais aussi donne exemplaire dans tous les domaines.